bi mooy maqaama bu ñeenteel ci maqaama bi li muy jàngale muy nit bu nekk ay nu war di doxalee diggante moom ñoom lu lay jàngale su ko defee ñaari masab nag la fay jàngale benn bi mar mooy nga doon kuy rafetal nekk muy kat ah yow daal lu nit mën a def yow li baax rek day defar rek loolu lay def lu nit a def nag moo xam waaye daal di rafet ci yow rek loolu ngay def mooy fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah dan ku waxal ne nit mu war lu fay beneen bi mooy nga nekk ni sa kunda gor piir nga xalaatoo lor kenn xalaatoo tooñ kenn xalaatoo yàqal kenn waaye nekkula bi nag dégg nañ la de lor nekkula bi dégg nañ la de tooñ nekkula bi dégg nañ la de yàqal am na yow moom bala jaxaas nga xam ne lu dul mooy wala man ma alayhim ñaari mazhab yi lay jàngale su ko defee nit nag ñaari yëpp la war a xam ndax ñi bokkuñ luñ laaj am na koo xam ne tiraay na ngay àndee mu am jàpp ci am na koo xam ne ful la ngay àndee mu am jàpp ci waaw su ko defee nag da ngay xam ñaari ñu tolloo ci bu xam ne benn ba fa nga def ko bu yàggee ci bu xam ne beneen ba jël nga def ko <laughs> axbara xam lena ibnu hammaami qaala mu ne zaxantu laxasoon naa ilaa dimyaatin jëm dimyaat dëkk la dama dimyaat mu ne mu ngi bokk ci dëkk dëkk misra yi tefes hiyaatin wa miyaat bari maana yu bëri lañ ci wax xaama hiyaatin jaatal jublu si wa miyaatin ak dëkk ak dëddu wala xama xiyaatin jaasam daje wa miyaatin ak tàggaloo jaasam wii xéet wa miyaatin ak wàcc lu ci nekk wax nañ ko lu bëri lañ ci wax waaye liñ soxla rek mooy xat mi xat mu jafe la xat ñaare bu jafee xam ne pexe yi ci la nit ñi di jàllale di jàlle ni kii day kenn loolu la bëgg a wax ñaare bu jëfee xam ne pexe yi ñooy sottal yu bëri demam dikk bay bëri lool daanaka kenn du toog mu ne mu mel nii nag xam ne xam mu jafe la ci laa demoon dimbiya waana te man yow ma itin bisu keroog ca booba de moom moo ko raxaa suñuy mar moo ko raxaa ku ñu yee jig ku ñu yee jig yolof laa wala dañ ma daan ji ne man am naa dara moom moo ko dee xaar ku ñu sopp ci bopp waa ñu bëri booba daan nañ ñu si am ak man ay alaaka ndax nit ñi niñ bëggee xam rek taana buñ la yaakaaree xam rek lañ la saane asaabu danaa diri mataari basaraay maraani ko waaye tali may feeñal maari suma situation suma doxalin daal ah ku man daal boo seetee ni ma dëkkee solo ni may waree ni may lekkee ni may jëflante nit ku man daal asaabu danaa diri mataarifa sarayi mala ne ciw gay koom waaye tali may feeñal maarifa sarayi mandargay ak bu mel nii ci laa dem dunia farafaqtu ma àndaale saaban ay àndandoo yu xam ne xasa koo xar nañ asa si xaaqe xetuwum fii warta daxoo te ñu nam afar yu xam bi baax ay dogalay dëppoo wala ay naa di dëppoo yàlla dogal ma ànd ak aw ñoo xam ne ñu déggoo lañ li ñu doon wuutee luy doon ñàkk a nangolaate amul ci ñoom benn seen lépp rek dañ jaar wata dama te ñu nàmp afawi xalifa ay a dëppoo dañoo nàmp déggoo fay xatal fay saa suñ seqee mbir rek nga xam ne ñu déggoo lañ xata la woo ba ñu feeñ kaasmaani musti demel ni bañu jaxat dañoo tolloo léegi bañu feeñe demel ristiwaaye ci yem doo mel ni koo ci xam rek xam nga kë ca def ndax ni bokkee mbir rek wakkan ak di mel ni bakkan alwaahidati ba de benn fil di amil awaaj ci dëppoo ay bànneex wala benn bopp lay wax wala ñoom ñëpp benn bopp lay boo ñu kontaan looyee kenn daal la nga ko defal ba mu kontaan ku ci ne fay mel ak mu danga am gërëmal ci noonu lañ doyee benn waaye boo ca nag la nga def ba mer noona ku ci ne fay ni moom ko def noonu lañ doyee benn wa kun naa nekkoon nañ maa saalika ànd ak loolu nag di dox ànd jaa gaaw ànd gi neex na déggoo ne gàllankoorul dara nag ci waye ak yoon dem bu gaaw la ñuy dem wala na xaaru te duñu tegal du ñu laxasal de teg teg illa kulla wajaa rek gëlëm bu daaji gaaw wala gëlëm bu daaji kàttan buñ jógal tourné ay yu baax a baax la ñuy tànn ne ci la ñuy wax ne diir bu gàtt dañ maa dem bu sori way daan nasal naa bu ñu wàccee man di lan wàccuwaay xam ne bu xamee buñ naan nañ fa jàdd ndég man la sàngam awarat naa wala ñoroot man xaalan rootuwaay wala foo xam ne gaaree kaay la ñun nañ fa gaaree ndax gaaree kaay loolu bu amee ixtilaf naa ñu gàttal ak lu ko sax duñ ko yàgg dëgg dëgg waaye gis nga daal li ñu wax sonn na daal il faut ñu yàgg lu a départ te yoo xam doole lay daal yoo xam ne lu dara dañuy ixtilaf naa ñu gàttal ak lu sax wala mu si te duñu yàggal ak lu sax baax na daal gaar la naa ñu isti'maalu rikaabi lëngeeloo gawar yi fii laylatin ci guddi bët ya sabab gudaa ji yàlla ji ndaw maam genn guddi ci mara ko ndaw gi soxla tukki dal de gaar mara gaar gudaa bi yetul ihaab gudaa ji ñuul ci daal gudaa mooy baaxaaj mu ñuul waaw mooy guddi gi dafa daan dem ni baax faasay naa ñu la de rañaa baba lañ jóg ilaa nodaa ba ñoori allay lu guddi so yàggu oo ñu lay ñu doxa doxa dox ba njëllik xam ne guddi jeex si wasalaata te bocca mooy ree xam ñu lay lu guddi gi ci fanaan ci bopp njël gi dañu nekk di dox di dox ba suba yót te yina malil naa waxtu ba ñu yokkatee asura raña wa mil naa te ñu jàng ilal kara jëm ci gëmmentu léegi bañ doxee ba yëg ne gannaaw guddi lañ tàmm wante guddi moom jeex na te temps bu neex a doxee bi jeex na ñu ne tam liñ war noppalu jot na jot na bi loolu amee saadat naa dajal nañu xattan suuf moo tolla sa ruba sura sura naat kii tund dañoo dajal suuf su naata naat su xam ne boo ko taxawalee jur diir bu gàtt rek mën na lekk lu fay soxla moo tax la ka soob saba sa de suñu saba mu nekk suusu xam ne itam air bu neex moo koy xam ne boo fa dalee ndeg coono diir bu gàtt rek ne sa na fulu na kon suusi moom mën na liy tax a yar naa ñu tànn suusoosu mu naa xam muy yesu waaye dina ñaar gëlëm yi tax na kim naat ba mu taxawalee gëlëm diir bu gàtt rek mu lekk bu lu bañ soxla dana bu baax a baax wa maa tonte wàccuwaay li taarif yi ngir tëddal taarif mooy da ngaa dox bu guddi de ko ba jeex nga tudd na ku lu tuuti dara bi ñu ne bii moom mën na dal su ko defee nag buñ taxawee nag diggante si suñ bagage mi wàcc bi day ànd ak coow fi bañ ñëppay wàccee gëlëm gu nekk taxaw fa mu taxaw kenn ku nekk dal fa mu dal fi loolu amul dal du am bu loolu xamee nag la dal di doog am bu dal xamee nag ak nit ñi coono yi ñu xamee nelaw yu diis a diis mooy am nelaw yu diis yooyu bu xoyotee tuuti bu béyee tuuti day xoyot mu doon ne bala maa xàll a ba wàccee suuf alxaliitu mbooloo ma daa ji jaxasoo waada a te dal bi a ci suusa al atiitu bambu ya mooy baati gélém yi ci biñ leen a taxawal di leen yësal wal xatiitu ak xëral yi mooy nit ñi biñ ne la weexee seen la yu diis yi ñuy xëral bi ne ba loolu lépp dal samiatu dégg naa aji baatu muy ku xiir baat ana rijaali ci góor ñi yaqulu mu ngi li samiri yi ñaar aji ngoonaara la bi haali ci way dama ko dégg muy wax ki muy waxtaana naan ko waaw kayfa naka la kayfa humu sirati naka tëb sa jikko nag maa jili ka nag sa mas ba jirati ak say waaye yow nag a say dëkkandoo mu ne ko jaara wala jaara ñu jàng loolu masab bu njëkk bi mooy fa mën a faamu faajurhu alallah ah rafetal rek ba nga ana damay sàmm wala al jaara donte jënd kadu waaba wa abdulu dana jokk ak misaala jokk dama ñaar ko xam misaala song la man nit su fekkee wan na ma ne bëggu ma ci mu yow ba man balu ma naqadi yi lay man di waral ji wóore lay def waaw da ko teral da ko damay teg ñu ne daal di dem waax tamit dana xenu alxalis ak jaxaso wala da doonte benn ñu moo tax ñu de jaxase gannaaw xas lañ ma tuddee ne sama waaye li nga da nangoo toggoo ji waaye li nga war a toggoo ji waaye man daan ko toggoo ba mu man soo yeboo sax ne ñu ma la tuddee nag man rafet ci diggante ni da kañ ko tuddee doroon dama koy am naynu al xaliit aji jaxasoo wala al daa te feeñal na mu al taxliit a jaxasoo waa wuddu dana waa wuddu dana topp al hamim a xarit wala jarra ani doon te góoxal na ma al hamim a ndox mu daan yow ñu jàng lool man gannaaw man suñu coono xarit lañ rek mën na ma xarit su man suñu coono nga rek comme wolof day mu ne xam lu buy gisee mu ne man bañu ma sax ànd ak mu doon ne gi moom la def naa la gannaaw ànd nañ rek man li ànd ko rafet lay def waaw wut dana sopp alhamdulilah ma xarit wala jarraa nii donte góoxal na ma alhamdulilah ndox mi waaw. mu ne ko man daal rafetal fa man hafa wa aslaha fa ajruhu ala Allah mu ne wo danaa gënal asafiqa xarit ala saqiqi ci doomi ndey man xarit bu ma yërëmante su ma ko amee dama koy séddu loo xam ne li may séddu ki ma bokkan ndey ak waa bii danaa matalal lil xatiiri ñaal aji handoo waaye lam yu kafir doonte fayewut ma binasiri fukkeelu la ma koy defal man gannaaw xas nañu ànd la rafet ci àndoo ci nit ak commande dama koy matal ba mat doonte li lay defal suñ ko xaajee fukki xaaj yow defaloo ma benn bayit man naa faree man def lu rafet ba man rek waa bii danaa matalal binasiri ñaala ji àndoo waaye lam yu kafir doonte fayewut ma bilansiri ci fukkeelu li mu koy waa sëqin lu danaa néewlu aljasiila aji bijji lin na gan man damay xam gan defal ko teraanga ju rëy rëy rëy ci gis-gisu nit ñi ci gis ci gis-gisam moom gan ga waaye lu tax man ma gis ne def naa dara waaw selu bu baax a baax ndax henu man yàlla ko fi yanande rek jaam yàlla bu mel ne ci yow nag ah, nga def ci moom dara ngir yàlla waa mu gis sa bopp sama borom bu la suturaaloon wane sa manqué doo kii kenn mu yenu ci yow waaw ah, kon kenn du foog ne man nga dara mu yenu ci yow dégg nga waxadda min arrahmani fadlan wa ni'matan alayka isa ma jaa lil urfi taalibu waaw ah, léeg-léeg sama borom xiral jaamam mu diis la soxla war nga jaa sant yàlla suturaal bi mu suturaal suturaal bi mu suturaal xel mu baax a baax wa wadda min arrahmani wadda lan wa ni'matan alayka isa ma jaa lil hospitali madam waa taqillu danaa néewlu aljasila aji dijji li nasili ñaar gan waa muru danaa muuree asami la aji ngaaxoo zamil mooy ki nga fa ngeen bokk waruwaay ci tukki wala fa ngeen bokk benn liggéeyukaay ci métier wala fa ngeen bokk jenn daara ci jàng dafa jàngee ci benn jamono façon àndin boobu mooy zamil mooy samaala mooy loolu man dama koy defal bi jamil ci lu rafet su ma ko nit la rafet ci diggante nit ak zamilam noonu lay def su fekkee man dañoo nekk ci barab benn marché dafa jaay wala benn atelier dafa liggéey ah la nga xam ne moo rafet ci diggante nit ak muy liggéeyal te bañ ko yàqal bañoo dox diggante mu kiliyaana loolu dama koy def bu baax a baax a baax a baax jël ku baax a baax su fekkee dañoo ànd di tukki la rafet ci diggante nit ak commande ci yoon te mooy di ko dimbale ci bagaasam léeg-léeg ak di ko yaatal ci toogaay bu ja ah loolu man dama koy def bu baax a baax a baax su fekkee dama nekk nit ci daara ñu bokk de jàng la rafet ci diggante nit ak kam bokka te jàng alors ah, dama koy def bu baax a baax te mooy de laante biir ci góorgóorlu de bokk de waxtaanee xam-xam de laante biir ci njëfandu nangoo xable hante téere nangoo xable hante bindukaay naka noonu nangoo dimbalante ci yenn liggéey yi nangoo jëriñe ci xewal ñam koo façon yooyu man mooy sama mbir selon gu waaye jikko baax a baax la jikko yu baax la selon gu baax a baax waa muru dana muuree الزميل آجي نغاهو بالجميل جدرة ونسل دنا واشي سميري آجي نغوانا على السما منزلة أميري واشي واشي سمو بور سوامي كوني فما سيتي ديك وقتا ناسيما وقدما كو جو تير مل مل مدمو كو يسل بنتي دا أنا كنا من جرم ناكو مدما سيتي من دمو كو يسل بنتي دا لوريك ما يوم waxillu danaa wàcce alis yi aji wettale sama mahil mahal rais yi wàcc waaye sama njiit koo xam ne sama wettale dama koy wettale ko ku il boole dama koy déglu nangul ko ndax naa wettal te moo may wettale il faut ma nangul ko cër ba am ci rek jël ma li ma bu baax am solo la waaye am solo la bu óodi on danaa ting maarifi samay xamaale xawaarifi samay njëkk man gannaaw sama xamaale nga la rafet ci tiraas bi ci diggante sa kam xamaale ah dama def soo xewle lu nit war a def dara ma def ca la ma ca war a def soo xewle lu nit war a teew ah ca ba mu àgg ba mu àgg rek dina ko bu baax a wa óoli danaa méngale murafiqi aji handaale sama marafiqi samay njëriñ al marafiq mooy yi nga xam ne fu nit nekk mënu jaa ñàkk soxla mooy ñam ak ndox ak kar ak wono ñeenti yooyu ñooy marafiq amul fu nekk te du leen soxla mooy yooyu leen nag man du ma jël xatal ki ma àndal ñu bokk ko maanaam ngi bokk yoon matana la ci ndox ah dama teel rek ni nga xam ne soo matane am ngi lay bëgg de ah xanaa ngi ànd matana la ah, damay teel rek soo matane am ñu ñuy def gannaaw dal ci barab ma am lu may lu mën a keral te amuloo dama teel rek su mbir mi nga def lépp ne daal nit da koy soxla su ma àndee nit man du ma fas yéene da koy xatal ba lor da koy seetlu bu baax a baax ay jikko yu baax a baax li muy wax ne bu baax a baax waaw bu óolii danaa méngale muraafiq yi dañuy wax ne bokk na ci sababu jubóo yi nit nga de ko wooyee turu turu ko neex ak bu la fekkee jotaay bi yaatal ko ah sabab bi nga xam ne jubóo dana ji amee yaakaar naa ne yooyu ci la man gis naa ko ci téere waaye yi nga ñaare boo bëggee jubóo nit daal soo koy def ñaare da ngay jubóo ah turu ko neex nga nangu ko koo xooxee ak itam bu la fekkee ci baram nga nangu de ko yaatal loolu ñaare boo koy def nit rek ñaare seen diggante jàmm dana ca man di am waaw. wa óoli danaa méngale murafiqi aji àndaale sama marafiqi samay njëriñ wa óoliinu danaa noyal maqaali sama wax leen xaali ñaa aji bañ man dana may wóor ne kii ne jubluwul ma waaye lu tax may xool ñaaw jikko nag di wax ak moom waxin bu njëkk déedéet moom kay na paree ñàkk a jublu nga rek waaye du ma xañ na jikko ودي مدرات لغالت آلي سمع الله جل جان عن التالي ولد أجنيز لكو أقل فمن لسمع درسه بفات مارك لا يبغ du bëgg kenn mu tudd man damay nekk de walaaj ci ana diw mbaa mu jàmm rek waaw mbaa fi amul ay tolof tolof bi lay dem waataa danaa gërëm minal wafaay ci matal bil bàyyi ci loolu nit lu ma defal dara ma ko defal wante moom ngay la ko tuddee man dama koy nangu muy la sëlum bu baax a waa daa danaa gërëm ne lu fay ci matal lu fay ci waa xanaa waa danaa doyloo minat jasaay ci fayee daa xallil ci gën day nii ñaari wax wala tasallamu du ma saw a tooñ xiina udlamu waxtu waa def na ma tooñ man dunne su ma nit rek dama nekk dafa tam dafa tawat dafa tawat dafa tawat dégg nga wala tasallamu du ma saw a tooñ xiina udlamu waxtu waa def na ma tooñ dama am lu may seet wala an qamu du ma fayu du wala wala dafa ni donte matt na ma ala qamu jaar man du fonk fayu gis nga masa boobu di di faman hafa wa aslaha fa ajruhu alallahi bu mu ci mën a do am nañu ci wax lu bari nga bii ki yoo am solo la mu ngi nii lii daa bëggoon a wan mu ne wa inna allazi bayni wa bayna bani abi wa bayna bani ammi la muxtalifun jiddan mu ne samay doomi bay ak samay doomi bay tax ne may jëflante ak ñoom ak ñoom ñuy jëflante ak man ku dina torop wa inna lasi naka li nga xam ne bay nii nekk na sama diggante wa bay na bani abi ak diggante samay doomi bay wa bay na bani ammi ak diggante samay doomi bay tax la muxtalifun aji wuute la ci dan lool araahum ila nasri bi taan wayin humoo daaw ni ila nasrin ataytu humoo sadda sadda araahum danaa leen a gis bi taan ñu de way yéex ilaa nasri jëm ci sama ndimbal dimbale waaye wa in hum buñ ma xooxee ñoom nga biri xaale taxaw ni ilaa nasrin jëm ci ndimbal atay tuum ma dikkal leen sa dal su ma tolloo ci tolof nañ maa seetaan ba ma noonu waaye kuñ ci wax ne dara jot na man mënu maa am suma tollo ji tolloo ci tolof tolof nag ñoom mën nañ maa seetaan ba ma noonu ñoom nag kuñ ci wax ne dara jot na man du ma toog mukk te du ne dama ko dégg nga ko wa in akaloo lahmi wa fartu luhoo mahum luhoo mahum wa in hadamoo majdi banaytu lahum majda suñ nee ci sama der waxuma lu jagadi lu ne man fu ma nekk lu leen baraka daal te lu baax a baax su fekkee ñu ngi yëngal loo xam ne dama yàq daf may suufeel manu leen a sigil rek moo tax wéyeen akkaloo buñ lekkee ñoom lax sama yàpp mooy buñ dalee sama der wax te lu jagadee jagade ba fartu man ma bëri lu oo moom seen yàpp wéyeen xaddi moo buñ ñàkkee maj di sama cofe buñ buñ na ma maaf di sama tedd nga sala banaytuma tabaxal la bu may hmm. tabaxal leen dendal hmm. wayin dayanoo xaybi xafistuhu yóobahum wayinum wayinum xawoo xayyi hmm. awiitu lahum rusuda su ma leen joxee gannaaw ñi tànk sama fàddu googu dama yàqal man de ku ma ci jox su fekkee ñoom raaf nañ ma ndi bëgg maa dugal ci lu jagal man lu leen di rafetal dara wa in zajaroo tayran bi naxsin yu mirru bi sajartu lahum tayran yu mirru bi imsaala wa in zajaroo bu ñu jàjjee tayran janaaw yu mirru bëgg dina mu rombale bi ci man bi naxsin gaa gaaw mooy su ñu fexee loo bon loo xam ne sama lor moo jaa nekk tajartu man ma jàjjal la um ñaar leen teeren janaaw hmm. loo xam ne yu mil dana mu romb rek hmm. man daal kuy bonee na bonee rek hmm. waaye man tànn naa di kii baaxee ñëpp rek en tant que mu ngi ci manqué samay bopp lahum jullu maali way mu am solo ngi nii nag lahum jullu maali in tataabaha li xinan wa in qalla maali la tukallifu mu ne su ma xamee lépp mën naa leen koy jox su ma ñàkkee lu ñu am mën naa leen koy jox waaw waaw soo dégg nga ma ne man su ma lépp lu ma am mën naa koo bokk ñoom waaye lépp sax mën naa leen koy jox su ma ñàkkee lañ xam lépp mën naa leen koy jox lahum ñeexal na leen jullu maali li ëpp ci sama alal in tatabaha bu toflantooyee lii ñeexal ma fi nag wayin xalla bu néewee maali sama alal la bu kallifum du ma leen toog birif dam xont dallu mu ne man nii laa ndew samay bopp wala ahmilul hiqda alqadima alayhimu walaysa yasurul qawma ma yahmilul hiqada yëfi démb ya nga xam ne neexut ci xol du ma ko ci suma xel mi leen noonoo ndax koo bëgg a doon sang ci say nit ci say bokk loolu doo ko def wala du ma xenu aliqadam bañeel nooneel alqadima guraaj jiitu alayhi walay sa yar kisooru du sangu alxawma nit ñi man koo xam ne yaxmilu dana mu leen waaye sa dem rek gis nga ko bu baax a baax gis nga ko bu a baax mooy masab bu njëkk bi masab bu njëkk bi dégg bu mu ci wax nañ mu ne wax daa danaa minal lu minal wa bàyyi ci bi li bàyyi ci lu néew wala tazallamu du ma tawa tooñ waa xanaaw danaa doyloo mel bi bàyyi bi àqali la saa ci gën tee néewi xaaj wala tazallamu du ma tawa tooñ ina ut lam waxtu waa def na ma tooñ wala an xamu du ma fayu hit nag wala wala wala daxa nii doonte matt na ma alal xamu jaan jaan ji bidi fànde mooy la xam mu ne ko li mooy masab bu njëkk bi faman afa wa aslaha ajruhu ala Allah ñu dem ci mazhab bu wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaa'ika ma'a alayhim min sabil boobu nag moom moo gën a bëri boobu moom moo gën a bëri fa qaala daal di wax la woo ñaal ko saahibu xanandoram bi mu ne ko man daa société bi nii laa ci nekkee rek xanandoor bi ne ko way ka xoonaata kéemaan ha man di xëlam nga yàpp ne yow sama ndoor innama yudannu def naxaay bi dalili ci lu jaraay wuyu naa fas leen na gànjirante fi samini ci lu njëgu ne ko baax na waaye ñi ko jara defal ñoom lañ ko war a defal li nga wax ni baax na waaye ñi ko jara defal lañ ko war a defal booy jàkkalaan da ngaa jàkkalaan lu loo njëg booy nay da ngay nay ci lu lakin bi fi nekk ana man man de buy man laa aati den may dikkal xayral mu waati ku dul aji gëstu man daf ma wóor ne man nañoo def rek ma door a séq ak yow waaye gannaaw ni man ni ni nga man manee ma moom ah du ma nga manee man ma jàppee ni ma manee man loolu la man loolu la man lakin li mu nekk ana man laa aati du ma dikkal xayral mu waati ku dul aji gëstu wala aati mu du ma mandargaalal alhaati duwaan yi alha a yi haati alhaati aji tëtërlu bi mu raahaati ci sama sàmmuwante koo xam ne xamoo benn ngor ab loxoraan la du ma la wax ne suñ diggante bañ naa dama la wax rek la foofu xàpp ko mu gën a lu la neex nga wax nga nga bëgg di man dama la wax ne lu ma neex mën naa la koy wax lu la neex nga def nga bëgg di doxale ma wax lu la neex lu ma neex man moom laa lay dégg nga wala usaafi du ma man koo xam ne yéen ba dana mu bañ insaafi sama sell man su fekkee su ma sama àq ca xaritoo ga sa yoon newu ja ah du ma xaritoog yow lu muy def rek dara moo tax waaye nit amul dëru gu tool de def dara te dara taxul subaa xaritoo dara mooy tax nga di ko defal nit. su fekkee dara jooju nag mën a ko amee ci xaritoo moom kon doo ko nekk nga li ma la ah nit du mat mat gu toll ni di yëngatu wala doylu gu toll ni di yëngatu ci loo xam ne njëriñ waru ko caa fekk loolu moom mat ak nit doylu nit xàq ko ba tax na nit lu muy def rek dara moo kon xaritoo dara moo waral su fekkee kii boo xaritoo moom li waral xaritoo gi man daa dara ji tax ngeen war a xaritoo amul loolu la dara defoo ko dara wala waaxi du man koo xam ne yul dana mu ala waax ay kóolëre man képp ku ma xam ne war kan nga jàmbu kan nga du ma fasante yow dara waaw te ko dul àgg yow ci naan ma def dama dul àgg yow comme mu ngi kan man du ma fasante yow wala waax yi du ma mbokkool man koo xam ne yor yor xëy dana mu saan la waxee ay kóolare wala umaal yi du ma mayanteer man koo xam ne yu xëy yi bu dana mu soyal amaal yi samay mébét loo xam ne nangu ko defal dara ndax àddina jëriñante moo ci ne rek nit ñi dañoo soxla wante ah gannaaw man fi maa soxlaa ni te man ko nangu wul ma faa pare ah na ma bàyyi ma defal ki nga xam nangu na maa pare fi ma soxla te loolu bu baax a ah. adduna moom dimbalante moo eh, ci ne rek nit ñi soxlaante moo ci ne rek gannaaw nag bi ma soxla te moom mu manee ko nangu woon ma baa pare hmm. ndax na ma bàyyi ma def ak ki manee bi ma soxla ma hmm. ki ko fa nangoo pare ñu soxla ma dégg <laughs> li ma fi li ma ne oto de di de wala ubaali déet may faale bi man koo xam ne sarama dagg na ibaali samay buumi ko wane ne bëgg na jubóo bëgguma jubóo na defar kam ma ne bàyyi ma kam ma ne bàyyi ma ko wane ne bëgg na jubóo moom mais bëgguma jubóo na defar kam ma ne bàyyi ma rek la fa man jaana ya marhaban bi ma ji ñun daal ku ñëw ci ñun dañ naan ya marhaban waaw kenn duñu wax bëgg nañ la ñu naan la bañ nañ la fa man faatana yeg fii an naa na bootu waaye eh, ku foog ne doone fi ñun lu tax buy ma ñàkkee nag mm. wàññi ñu daal mm. ba tax muy ñu sori na xam ne doxal nañ ci moom lu xam ne moom it la ñu tàgg ba koy wàññi loolu la koy wàññi ah su ma ne muñ la koy daal ci moom mm. man ñu mën a muñal daal man ñu la muñal xel bu baax a baax loolu dafa am taalibam boo xam ne mu ngi jàng allez loolu faral ñu ko ca xam-xam ñu ngi jàng daal anam yu ci bayal ayon maa ngi leen di jaaxal dikk ji bu ñëwee bu ñëwee si góor góor gi di ko dégg maa ngi benn bis loolu jàng ab taalibeem bu doon topp doon soxla te dem ci soxla boobu ubali du ma mayet wala wala ubali de may bi man koo xam ne sarama dagg na hibaali samay buy joko wala udaari du ma mudaaranteel man koo xam ne jëhila réere na miqdaari sama kem koo xam ne su ko séddee du xam ne dama ko sédd dafa foog keewu teem wala liyam wala liyam wala liyam moo ko may li mam ci man boobu dara laa ko du sédd al mudaara mooy da ngaa sànd ak nit séq nga séddu li yaa ko moom waaye nangu koy rotal ndig rek yow na nga doon kuy rafetal ci seen ànd mooy loolu kam koy defal mooy koo xam ne boo ko defalee dana xam ne fañ ko teraal daal mu respecté loolu seetlu ma bu baax a baax waaw seetlu ma mooy loolu dafa am koo yow ko moom loola nga ba ko wàcce ko ca yow yaa ko moom nag waaye wàcce nga ko ca la moom yëpp na yow topp doo nga ko la nga si jublu rek mooy na nga doon kuy rafetal xaddoo gi yow mooy loolu kam koy defal day doon koo xam ne su ko defee dana kooka dana ko xam waaw. bu baax a baax ay ko neexle bu jarul bu jurul am jàmm la jaare neexle jàmm rek ko jaaw bu ko xam nga li ma la wax ah neexle bu jurul jàmm def neexle koo gis muy ko defee dama bëgg am jàmm léegi kii neexal ko du la am jàmm. loolu yaa neexal te loolu neexale foo ci dimbale ko de rek bëgg a am jàmm kii neexal ko du la am jàmm kon loolu yaa neexal ah loolu neexal neexal la de neexal la de wala wu daal yi mu daaraan man ko xam ne jéego la réeré na mi xadaari sama kem wala on si duma jox si ma mi sama man ko xam ne yóbbu dana mu wuri ciment bi samay kóolare man su fekkee sama mbir su ma la ko jébbalee doo ma bañ a yàq su ma la ko jébbal de déedéet yëf yaa ngi ci ne du baax loolu du ko may kat du ma ko may kat te loolu bu baax a baax léegi day jar lépp nga doon koo jox lépp rek su jarul lépp nga jox ko lim jar te yem jare su jarul nga bay ko jox dara loolu moo waral loolu moo waral waaye yëf yaa ngi ci koo xam ne la tax ñu war a wax ni ngi boo ko waxee bu ko def loolu mooy dara loolu bu baax wu defaral la loolu moo war a am moo war <laughs> loolu moo war maanaam jàng ngeen téere yi jàng ngeen ñu dañoo xamul lu ñu téere yi wala abdulu duma jox wi daa di sama cobeel li al daa di ñaar samay noonu gannaaw day ma konto suma mbir sax ah ah man sama bopp rek laa te tëgg la ma fee kon man bu ma laa teg daal du war a te nit lu ma def ma ah du war a wala adama du ma bàyyi i haadi sama tëkku lil mu haadi ñaa aji noonu sama seetlu ko baax a baax jublu haadi ni dama digu may la seetaan léegi ma digoo nga def ko sottal ah danga ma xam léegi man maa lay woon loo ma xam nga bàyyi affaire danga ma xam ma lay woon yow loo ma xamee léegi ah bay wax man ma def mu jeex bala ngaa def rek ma def mu <laughs> ne loolu la waaw affaire yi dag ma xam maa lay woon loo ma xamee léegi rek loolu mooy mbiram loolu fay man jarut asalaamaaleykum man jarut ah man saalekum rek doy man nuyu ko du fay jarut asalaamaaleykum man saalekum rek doy nañ waaw waaw te ne ko daal gannaaw xattanoon ci yewin nag xebale sa bopp ci moom dana ci baax rek te seetloo mën a wéy ci moom dana ci baax waaye mu ne nuyu ko la du fay de jël asalaamaaleykum mu ne saaleykum rek daal di def waaw waaw waaw wala dama duma bàyyi ihaadi sama takkulil muhaadi ñaar aji noonu wala axrisu duma jëmbat al ayaadi ay may fi ardil aadi ci suufas ay noonu mooy suma njëriñ wàllu yokk nit ah duma ko jox suma noonu de koo xam ne doole ji moom yow la koy xeexe nga def wuutal doole xanaa ko yow yaa di yëngu xam nga noonu la koo xam doole ji moom yow la koy xeexe yow nga def wuutal xanaa kon yow yaa di yëngatu ci lu la lool loolu ay dana seet di te loolu waxaa doole ji moom yow la koo xeexee nga def wuutal doole yow xanaa kon yow yaa di yëngatu yow ci lu la lool loolu kan moo koy nangu kenn moo ko nangu waaw te loolu koo xam ne doole ji moom yow la koo xeexee nga def wuutal doole yow xanaa kon yow yaa di yëngatu yow ci lu la lool loolu ana kan moo koy nangu kenn moo ko nangu de kenn waru ko nangu de li may wax nii de du ko def kenn du ko nangu kenn du ko def waaw kenn du ko baax a baax boo ko wax rek waaye ñaare ñi xamaat dina di nit yi bu réer nii la ñuy dundee yëpp yi caaxaan kenn leen ci waale kenn leen ci waale kenn leen ci baax a baax boo xam ne yéen lañ mën a andee yow yéen lañ mën a andee yow gis nga kii yooyu ñu doon jàng gis nga kii gis nga kii nii te seraat bu mujj bii ci lay wax dina ko baax a wax dina ko mu ne fa in tasur ni asur su ma la jàllalee nga dikk ba ci man ma dikk ba ci yow aw in taqif bi baabi aqif su fekkee ma ngaa taxaw si sama bunt naan ma xëy bayin ma taxaw wallahi la kuntu fi hisaabi illa isa kuntu fi hisaabi sama diggante yow daal boo ko boo léegi mu ne bii jafaaka wala tabxal bisinaati yi nit gannaaw moom fonka di rek la la mën a sédd mu ne ko te ba ko bañ a wanteer sànni ko jaxal bi na nga jaay man koo xam ne jafaaka béccandkal béccingal na la wala tab xal te bul nay bisinaatii ci marchandise wanteer ko warlub te na nga sàkku bii ci moom badalan watta weccee keneen in raamoo bu tabdiran we wat ki daal gannaaw amu ci yow soxla ñàkkal ci moom soxla bu baax a baax <laughs> loolu daal xaw bu baax a ko waaye nag nekkul yi benn wéy bi rek la ji waaye xasida bi man gis naa ko xasida ibnu saraf la alxayra wax ni yaakaar na waaye kon ñu jàng loolu mel ni waaye bi wala ak moo duma waakaat wala ak moo duma tabee duma waakaat ci sama dimbalante dama ñaan koo xam yëpp la samay naqar muy tiis man hmm. su fekkee su ma nekkee ci tiis hmm. tiis boobu da nga koo def bànneex ndax loolu nga ma yéene hmm. soo tolloo barab du ma bokk ñu laa dimbali soo tolloo barab du ma bokk ñu laa dimbali waa sax muy dimbalante dimbalante ci mbiram ko tollu barab soo tolloo barab du ma la dimbali wala asma ko du ma tabee du ma waasaate ci sama li man ñaar koo xam ne yafrahu dana mu béggee ma saa ati samay naqar wala ara den may gis iltifaat yi sama geesoo man jëm ci koo xam yas mu dana mu ndokkoo yoo faati ci sama faatu koo xam ma deewoon mu def ko kontaane su ko fekkee ci lu ko rey du mu koy jëlee ko geesu de wala ara den may gis iltifaat yi sama illaa man jëm di koo xam yes mu dana mu ndokkoo hmm. yoo ko atee ci sama par hmm. wala axustu duma jagalee hmm. bi xibaa yi sama may illaa ahibba yi ndare samay soppe su ma xasee bay joxe ñoom lay jox de ay koo xam ne doole ju moom wala tati bu duma garballu li day ñaar sama jàngoro illa awi day ndare samay soppe ñun lay tawata sama jàngoro xel mu baax waaye koo xam ne yoonam ci suma loru yoonam ci suma guñéeb yoonam ci suma gàcce ma def naan ko naa nga ma ma jaax loolu mooy man dama wuta suma bopp bu ma reetaan rek loolu man dama wuta suma bopp loolu kan ma ko def ndax man ngay koo xam ne mu mucc ñor na ko musique gi ñor na ko mm. ku lay dem ba ragal mm. dikk na ko nangam nag tiital na ma mm. ba ma dem ba jaaxle dikk na ko nangam jaaxal na ma sa bopp ko laa reetaan rek rek la waaw te loolu utal rek la wala sa tibb du ma garballu li day ñaa sama jàngoro xanaa bi day ndare samay soppe wala u ma likku du ma moom loo xullati sama xaritoo hmm. man koo xam ne lay sudd du mëdd hmm. xallati sama ñàkk hmm. man koo xam ne xarewu ko fenn ko du ma ko xaritoo de ah man kay suma xaritoo nit waaye doon nit koo xam ne fay jëriñu ci moom mu jëriñu mu jëriñu ci man waaye koo xam ne dañoo soxlaa xarit su ma defee xarit du ma ko amee ci xaritoo yow xarit doo am sax ñu ko soxla wala ma lekk lu ma moom loo xullati sama xarit man hmm. koo xam layisul du mu mëdd hmm. xullati sama ñàkk wala wasat bi den may sellal hmm. niyati sama yéene li ma ñaar koo xam ne yetta man naa dana mu mébét ma niyati sama dee koo xam ne diggante sa bopp sama dara du baax waaw du ma bëgg lu mu bëgg mu am ñaan ma yàlla lu mu bëgg yàlla defal ko du ma mos ñaan li mu bëgg yàlla defal ko ndax li mu bëgg ma la ci sa bopp ah du ma ñaan loolu ah diggante sa bopp sama dara du baax ko moo tax bëgg yàlla na ci yàlla ànd li bëgg ma loolu ci la bokk wala aussi du ma sellal ni yéete sama yéene li ma ñaar koo xam ne yetta man naa dana mu ma ni yéete sama dee wala waxlisu du ma sellal duwaa yi sama ñaan li ma ñaar koo xam ne layu fi mu du mu feesal yi sama ndam defaloo ma dara teer bu ne nga defe ne damaa ne na la yàlla yàlla na la yàlla def mu wala uhriqu du ma tagg du ma sotti sanaa yi sama tagg xalaaman ci koo xam ne yow fa dana mu féexal idaa yi sama ndab man daal gannaaw jëriñoo ma dara su may continuer baax du gën a ji boole parce que su may ma defal lay sant <laughs> sant rek wala uhriqu du ma sotti sanaa yi sama tagg xalaaman ci koo xam ne yow fa dana mu féexal idaa yi sama ndab ko man ana kan ak kama benn su la may joxe watax doon yow nga dégg donc mu gàtt ana kan mu waate ne àndoon na tege ci kenn de jël ñu kenn de di loolu ba man ana kanaka moom mu waate benn su la may joxe watax doon yow ngay dégg wuli na may nooy watax doon yow nga dégg ñu gën waa su may ruyu watañ ma de yow nga de wéer nga de waaye rek de kën alors que waaye bi loolu kenn santaane ko ah loolu yow nga dégg rek dégg waaw waaw may tàgg koo tax mu ne yow nga defee rek loolu kenn àtte na tawaasoon danañu tolloo peeseante fil ma xaal yi wax was nal mit xaal kem peeseante gooro ne nga but ak but dexeema kuwa noonu la ñamee di de boo kàddoo daal jàppandal ma kàddu yoo xamal boo kàddoo ñëgasal ma kàddu ñëgasal wana taxaasa danañu tolloo fil bi ci jëf xaswal ne ah kéem tolloo kay daal rek xamuñu tolloo rek ba leen toll yi bii may seq ba leen toll seq bi waaw mais itam na wax dëgg yàlla fi mu faree daal comme tolloo foofu laa lay faree li nga atan ci man la mu tolloo loolu laa lay atan ci yow waaye nekk bi waaye ni ma diw def ni ma diw def yaa nangu nii la ko def ni ma diw def ni ma diw def loolu du ma fekk jaan la kenn yaa ko nangu wala taxaada danañu tolloo danañu tolloo fi finali ci jëf xal wa neexal kem tolloo ay dàll xataa na mana ba danañu hóolu attaxaabu na naxan su waxande kenn naa kenn wal nu parte fegale ata daaxu na bañante affaire affaire bañante bi jaam wa illaa su fekkee ànd gi mën da tëddee noonu walla ngir lan awalluka ma di la sumbali may ma di la yokk wattu xellu ni yow nga dem xoppaloo alxalal man ma yëngatu di la yokk yow nga dem a gote wa aj tarifu may fàggul la kañi xàlla wasa jiragu ni yow nga dem a jam wa may wër ilayka jëm ci yow wattu sarifu ni yow nga dem a war na nekk kon waaw ba uqillu ka wa tastaqillu nii bu xamul loolu ki bindu ko ki bindu ko wa uqillu ka may la yëkkati alqullatu njubbu rek wa tastaqillu nii yow nga dem a néew alqillatu tuuti wa kawiita la bu naka la def bi bijji insaafum sellal bi day ci tooñaange yow na nga nit mu dëkkale doxalin bu jagal ni seen diggante te ñu wax ne ànd gi fa tegee ci maanaam mu koy buy tele bu naka la bi jë insaafum sellal bi day ci tooñaange waan naa tusrix wana fan la fenk samsun jant maa xëy bi ànd niin yow fan nga xam ku dëkkee di def luy waral ñu bóoxi nit di jubóom kan moom man jubóo koo xam ne ba dëkkee dëgg jubóo di war a jubóo di hmm. waaw naa ko fekk fan la fenk samtul jant hmm. maa xëy ma ànd ak nii hmm. wa mata usifa kañ kañ la àndaale wa mata usiba kañ la ñu àndaale wu dun cofeel bi ah, nga fiñ ci ngàññeeg ci tooñaat yi ana kan nga xam mu sopp loxoraan bi koy sonal xam wa mata usiba bi ah, nga fiñ ci tooñaat waaye hurri naa ban gor radiya mm. moo gërëm mm. bi xutta bi xarfin ci cër ak wàññeeku mm. ana ban gor moo nangoo wéy ci li ci nii ku gor jëla ko torox walillahi kéemaan ñaan na yàlla boo sabay yow da ngaa déggu saw yu bàyyi waxee si yokkool ba may wax ne jasaytu man ala qabiwu dao jasaa man yabni ala ussihi wakiltu lil xilli sama taala lii إخفاء الكيد أو بحثه ولم أخسر وسر الورى من يوم وأخسر من أمسه وكل من يطلب عندي جنا فما له إلا جنا خرسه لا أبتغي الغبن ولا أنثني بسفر المعبود به اسمه ولست بالموجب حقا لمن لا يجب الحق على نفسه جنبه mu ne jafeytu fay naa man ka nga xam ne xaala xaala xaaj na biyee ci man wuddahoo ca feelam hmm. jasa man faye koo xam ne yëpp nii dana mu taba hmm. ala ko si ci fondement mooy hmm. ni nga gis fondement di jëflante ki bëgg a tabax man noonu lay jëflante suma xam nga tabax gi boo koy fondement du nekk naan la yaaxal ma dëxëral ma yëpp la ko wax wala setaan waaye bala nga balaa du néew ba mm-hmm. ah, da nga bon damaa mu yaare mm-hmm. balaa du néew bu fi yàgg mm-hmm. da nga ko bon damaa mu dëgër de moo tax man affaire ah, teg ma fii ha defeel nii ha yooyu yëpp daal du ma fekk suma diggante nit waaye soo bëggee ma teg la fenn ah, da nga ma teg fenn de waaw <laughs> loolu daal mooy mbir yi waaw ba daal affaire teg ma fii ha teg ma fële loolu du ma fekk jaa ku bëgg ma fonk ko ah dana de jësaytu fay naa man ki nga xam ne en xaaj na biyee ci man wuddawoo ca feelam jësa man fay koo xam ne yeb nii dana mu tabax ala aussi ci fondement wakiltu natt naa lil xilli ñaal xarit kamaakaala ni ki mu nattee li ñaal ma rek ala ba fayil li ci matal natt aw bax yi wala wàññi ah nit su fekkee jaral naa ko lu mu man dana ma jaral lu man su fekkee maa am lu ma ko jaral kem la ma ko jaral loolu la maa jaral dégg nga dégg nga loolu la wax ne su fekkee jaral naa ko lu mu man ah dana ma jaral lu mu man bi su fekkee dafa am lu ma ko jaral nag ah kem la ma ko jaral lu ma jaral ma daal loolu laa jaxam wakiltu natt naa leen xal leen xilli ñaar xarit xamaa kàlla ni ki mu nattee lii ñaar ma ala wa fayil kay li ci matal natt aw bax si yi wala wàññi wala mu xasir wutu moo ko pertaloo nag wala du ma koy amul perte xandan ni muy pertaay ci suñu ngàndoo loolu du ma ko wa sarul wara kii ci nit ñi man mooy ko xam ne yow mu ko teem ak saru moo gën a perte min am si ci démbam ndax wax dëgg yàlla dara xeesul dellu gannaaw xand ku lay pertaal loolu la rek xand ni da ko pertaal dellu gannaaw dara xeesul dellu gannaaw wa kullu man képp koo xam ne yatlubu dana mu sàkku xendi fi man janan kottite mooy meñña mm. fama la woo ñaalu ko illa jana xarfi yi mm. nda rek kottite jëmbatam maanaam kuy bëgg a wittee dara mm. la nga fa jëmbatoon nga fekk soo fi jëmbatee dëgg dëgg la muy jamee rek soo fi jëmbatee loo weex loo weex nga fi mën a jëlee moom kay da nga fay jëmbat loo neex rek man fay jëlee loo neex <laughs> dégg ma daal la gën di moos la ma lebaloon démb daal soo bëgg a xam looy xam ci man daal seetal loola walañ <laughs> ki loola la fay de waaw kullu man képp koo xam ne yan dubu fi man janan kottite xama la wa ñaalu ko illa jana xar si yéen rek kottite lim ba tam laa taxi den may sàkku alxam na naxee man xila duma nag kenn waaye wala ansani du ma wëññeeku nag bi safqatil maxboni ci tàccu ku ñu na fii si ji yëgam waaye dana bàyyi ngay ma nax nag may mott naa ni ma diw def loolu mooy man bil mooy ma daal waral xaqan waru li man ñaar koo xam ne lay jibu du waral alaq waru woowa ala na si ci boppam man nit lu mu mën da togg man lu mu ko toggul sama man waaye nit lu mu man du mu gàccoo ci moom de aw wala man bil mooy di ma daa ji waral xaqan warugar hmm. li ma ñaal koo xam la yooyu bu du mu waral hmm. alaqa warugar woowale ala naf si ci bopp lu du ko def baax na ko fóot waa xaala nii ak du xool wut daa ala nafsihi wa ma dara min jahlihi annani hmm. aqdi xarimi dayna min fajur man istaxbaaka hajral qilaa wahabu kalmashudi fi ramsihi walbas liman fi waslihi lubsatun libasa man yurhamu an unsihi wala turaji lwudda mimman yara annaka muxtajun ila farsihi mu ne waru ba madaqil hawa bari na njarakooñ cofeel xaala nii jortu na ma asduqoo may ko dëggalal alwudda cofeel xalal laf si yi ànd ak lëntalam wala jaxaseen bari na koo xam ne ku nafiq la su dajee yow dala war ne la yaa ma gënal ci nit ñi ca waxtaan

ne am na nii naka man hmm. aq di danaa fayee xarii mii aji lebal sama adday na bor min jinsi yi ci xeetam fekk dafa xam waaye ni ma dikkee rek la ko taccoo waaw hmm. ah, man mënuma seet nit loo xam ne jaral ma ko hmm. la <laughs> wax dégg wala ma saara wuddun naa si xibban mu bi nga xamee soppante xamatu ndax naxante ji wax rek moo fi ne bi affaire bi demee noonu jasaytu ala ibtisaamin bi ibtisaami laa de ku ma dajal boo muñee rek ma muñ boo reexee rek ma rek ah wala man ku ma dajal ah boo muñee ma muñ boo reexee ma rek ndax garaaw dëggu amatul xamatul ndax naxante ci wax rek moo nekk ak koy boo leen naxante rek waaw wala maasaara wuddun naa fi xibban jasaytu ala ibtisaamin bi ibtisaami ne su ma demee ba ne naa jàpp ne xarit dëgg rek bu sama xel dajee ne ci nit ñi la te nit ñi wóora di rek du ma ko wóorati wasirtu asukku fii man asta bii te daanaka tànn kenn kenn da ko su ma dëgër lay xawma koo li ilmi annahu baadul anaami ndax su ma xamee ne ci ñi la rek te nit ñi faree matadi gi rek xali ma wóoru wa di ci ñi du ma ko wóoru yi moom <laughs> lamma saara waddu naasa xibban jasaytu ala ibtisaami bi ibtisaami wa sirtu asukku fi man asta fihi li ilmi annahu baadul anaam fajur na ngay tombu man koo xam ne istahbaasa dobloo na la jàppee na la ngay dob xajal xalaat tombu mbañeel ni su fekkee ne moom bi mu teg dofi la la teg bañ ko ni dof di bañee nit gedd ko ku bëgg dara fajur na ngay tomb man koo xam ne istabaasa dof loo na la jàppee na la ngay dof da nga koy tow jàppee na la ngay dof da nga koy tong xajral xilaat tongug ko kalmal hóodi mu mel ni ku ñu laadal firam si yi ci bàmmeelam jàppee ko ni ko dee bañ sul ko ci kër ku mag xam nga loo ko yëgal xew doo ko demal xew doo ko boole sa dara mu jàppee ko noonu rek xamale ko ku ñet dee bañ sulle walbas na ngay wadd li man ñaal koo xam ne fi waslihi nekk na ci jokkam lubsatun lënt libaasa man ko dayal koo xam ne yur xabu def na ci maam in sianum si ci wéttalam koo xam ne bu la lu bokk ci àndoo gi la cee dugal kooku wan ko ne ko tàmm waa du ko yow def laa bi am nu mu xamee ñoo diwala ko amul ci am soxla walbas na ngay waddee libaasa man ko dayal koo xam fi was lii nekk na ci jokkam li ma ñaal koo mm. fi was lii nekk na ci jokkam lu tatun mm. li baax man ko dayal koo xam ne dem na si mm. am na si ci wétta wala tura ji bul yaakaar alwudda cofeel mais man ci ko xam mu jortu an naka naka mu mu aji ila falsi ila te it nag nga boole koog nag doyloo li nga am gore gi nit ñi ne ku a doon bu foogee ne yaa ngi koy xatal ci la rek du la waay lu bëri ci nit ñi pour ñu la da leen a bàyyi li am moo tax si gor day góorgóorlu rek waaw ne ku mën a doon waaw soo bañee mu yab la wan nga ko li nga am ci la ko doo ko wan doo wan innama rajulu dunia wa wahiduha man la yuawilu fi dunia ala rajuli mu ne ki mën àddina mooy ki nga xam ne àddina boo xam ne nit ñi moom moo koy doxalal li tax mooy ñaari yëf moo fi nekk rek ay waru ak i cër setlangu waax a rek moo fi am droit ak devoir yeneen soo topp doyee sa waru gar nag sa cër mën nga koo laaj ci nu la neexee mën nga ko laaj nam kanam jaaroon mooy nekk dégg wala turet ji bul yaakaar alwudda cofeel mi man ci koo xam ne yaraa dana mu jot ne am na ka naka yow moxtaajun aji haajo ga illa fal si jëm ci koo xam qaala al haaris ibnu ammaam aaj na ne faram maa waayee ba ma mokkalee maa li nga xam ne daara wëndeelu na béy na mu wàcc seen diggante bi ma déglu waxtaane ba takk ko bu baax a baax tuxtu ma soog mooy ma nimse ilaan arifa jëm ci ba ma xamal ay ma seen jëm ma ne ñi de sama leen gisoon bëgg naa a gis de waaw ndax léegi nopp day jiitu bët ci ne dégg nga ndax ko day jiitu bët ci ne nga waaw tuxtu ma soog ilaan arifa jëm ci ba ma xamal ay ma seen jëm سمعنا بأوصاف لكم كرمت وسهرنا ما سمعنا وأحيانا من قبل رؤيتكم نلنا محبتكم والعلم تعشق قبل العين أحيانا falamma laa ba feeñee ibnu sukka i suba waal xa fa te wodd aljawwa jëwwu ji adiyaaw leer gi ba ba seteena ba nga xam leer gi mat la na jaww ji xam ne jiitante am na nit mën naa génn xam fu muy xaw aka dawtu xëy naa qabla istiqlaali rikaabi njëkk teem mu gawar yi damay dama teel a jóg bala kenn de jógee fi mu fanaan dama teel a jóg wala ti daal xuraab du caa génn xëy baaxañ baaxañ lu muy mën a teel a xëy keroog maa gën a teel a jóg wa jaatu maqara astaqri de xaw ba xaw ci wàllu baat ale lii bay ko ci guddi léegi nag fi mu baat dina ñëwee ci guddi foofu la yenu rek waa te war sama te may settantal al wujuha xar kanam yi bi nabari ci xool al jëli yi bu daa di feeñ da xool bu baax a baax ilaan la maxtu bu ma séen bu ma géndeel abu seydin wam na ko ak doomam et xaadasaa nit ñi waa léegi maa te nekk na ci ñoom ñaar burdaani ñaari bu bu raftaan ñu dafay ràpp kon ci maa dama yére bu ràpp la sol ay yére bu ràppee xel mi moom mu ngi beese lool faalimtu ma xam ne annahuma naka ñoom ñaar ji yaa lay la guddi gi ma xam ne li ma doon guddi ñoom ba mu tasa riwaaye te ñooy xas kon waaye li ma solo sama riwaaye hmm. li ma nekk nit ñoom la booba rek laa leen kalifin jublu aji sopp bi damaasatihima ci nawet seen jikko rafin kuda aji yërëm li rafaasatihima seen rab jublu kontaan gine ci waaye itam melokaan bi ma leen gisee daw sama mu yërmande fa xasattu maa mu aji sopp bi damaasatihima ci nawet seen farasin kuraajiran li xaasatihima kanara waabartuhuma ma daganalal leen a taxawula jàllarme ko ila raxli jëm ci sama laxal wa tahakkuma àtte fii kusri ci suma lu bari wa kulli ak suma lu tuuti ma ne baal nga ca ñoom wata fextu ma xarab usayiru de siiwal bayna sayyaarati ca diggante mbooloo ma daa ñi tukki fadalahuma seen gëneel xam na sayyaara ci jamaa musaafira lañ ko daan jëfandikoo mooy cosaan mbooloo mu ànd ci tukki jamono bii rek jumtukaay mooy oto sayyaara tasawurun lugawi la maanaam nit ñi ni nga gisee seen doxin da def soppeeku ci seeni mbir dafa dem ba àgg ci seeni luxa loolu moo tax rek baatu sayaara ñu ngi ko jëfandikoo ci jumtukaay bi ñuy tukkee seetlu bu baax a baax ah kaana tutlaqu ala jamaatin musafira walakinna al tafiqtu maqara usayiru de doxal mooy de siiwal bay na sayaarate ca diggante mbooloo ma daa ji tukki fadalahuma seen ngëneel mooy war ak ñoom nit ñi di leen présenté de wax ci ñoom li nga xam ne moo ne ci ñoom gëne li ngeen i ñam waawusu may gësamal ala waada bant yi almusmirata yëre way meññ lahuma ñaa leen ñoom ñaar ah ñi nga xam ne yàlla tooyal na seen loxo ba mën nañoo sàkku tiyaabo ku ma ci yaakaare bëgg loo baax hmm. ma xemam loo ko defal nii dara seetlu nga wax ñi nga xam ne yàlla tooyal na seen loxo ba ku ci bëgg lu baax mën naa sàkku tiyaabo hmm. ah ku ma ci yaakaare bëgg lu baax hmm. ah ma def loo ko dara ci ñii ilaa an ko ba mu réef leen bi nox daal ci may ba tax na jëlee nañ fa dara moo awusul envoie mirata lahu ma ñu ànd wa tuxida te jàppale te ne xulaa ñu bokk ci xarit ñëpp soppaleen mu mm. usayiru bayna tiyaarati fadlahuma mm. ñu jàng lool wa te doxtu maqara usayiru de doxal mm. bayna tiyaarati ca diggante mbooloo ma daa ji tukki fadlahuma seen gëneel ilaa ni tuxida ba jàppale te ne xulaa ñu bokk ci xarit yi waaw su may gësam alawaada bant yi al musmirati rawee meññi kilaa ngomira ah, ba mu rees leen benn flane ci may ah baax na boobu andi yow buy gisee ràpp ga rek moo ko waral waaye bu jegee rek hmm. wane leen loolu day am léeg-léeg dégg ni léeg-léeg nga gis ko ci jamonoy jekkat yi gisee comme aw melokaan te fekk melokaan woo jekkat yi ga rek moo ko waral waaye bu jegee rek xam nu mu demee tey kii nag gisee nañ ko yére yu ràpp xam nañ ne yorul dara présenté ko ba am na fi dara ja am na fi bayre jox nañ ko ba xoomal na ñu seet bu xoomalee nu muy defee nag mu ne falam maara ba gisee abu abu de wakkun naa te nekkoon nañu bi mu taarratin ci tat bi mu arratin ci tat tëdluwaay boo xam ne na tabayyanu danañu birloo bi nu ci moom bunyaanal qura tabaxi dëkk yi wana dana woote danañ ci seenoo niiraatal xiraa safaray nganale yi mu ne foofu ñu tëddoon ci cat guddi gi doon fa nokkuloo soriwul dëkk yu mag yi boo ci nekkee yaa ngi seen tabax yi yaa ngi seen safara yi borom man-man yi taal ndég da ci ganale na te bayin danañu birloo bi nu ci tëddal lu booba bunyaanul qura tabaxi dëkk yi wanata na wata nañ ci seenoo niiraanal xiraa safaray kaname yi falamma raa ba gisee abu saydin indi imtilaa kiis yi fees ak portemonnaie imtilaa kiis yi fees wan jëlaa buus yi ak huññeeku weñsum abu saydin nag ba mu gisee kal kalpe ba néewi mu xam ne jekkadi ga moom teggeeku na léegi waaw ah, falam a ba gisee Abu Seydin imtilaa kiisi yi fees ak mu ne mooy fees ak kalpeem wan ji laa buusi ak wuññeeku weñsum xaala wax na nii ñaan ma def ni ma inna badani sama yaram xaddi tasaxa tilim na man dama tilim toos wadara nii sama tilim xarra saxa sax na waxuma tilim mais dama kare la wax wadara nii sama tilim xarra saxa sax na afatasa ndax danga digal lii ñeexal ma fii xasdi xariyatin ci jublu dëkk li astahimma ngir naa sangu waa qadiya ak ma faj haadal muhimma di laa ji hitteel dama bëggoon dëkk yi nga may ma ma seet bu ma ci dem su ma demee seen barabi sangookaay yi nga xam ne mën naa dindi fëgg fëgg yaram ma man faa sangu boo fa effort sama jëm ndax fi ne bu ma rombee fii xam fan lay sangoo te toll naa foo xam ne ma sangul du baax ci man dama bëgg daal boo ko gisul muy dara ah nga may ma aba tasan ndax da nga digal li ñaal ma fii qasdi qariyatin ci jublu dëkk li ak sa himma ngir naa sangu waa qadiya ak ma faj adal muhimma jilaa jiiteel xaali ne ba qultu ma ne ko ila siita boo soobee farsunaata waaye nag gaaw de ma ne ko wàllu bu la neexee dana mënu waaye nag xam naa nit ñi nag moom ah yàkkamti nañ war rañaata rañaata te na nga del si del si na wax dëgg bul doxee nii dem waaw dem na nga fa qaala mu ne ma sa tajidu xel si ngay fekk mat laye sama cinq ans lay ga ci yow asan mu gën a gaaw ministre daal di sarfi que ci dellu sa gis ci lay ka jëm ci yow mu ne ba nga nekk de ma ñëw de xeet bi ngay fekk mën na ya sama fekk alayka ci yow asraa mu gën a gaaw minit si daal di sarfika ci dellu sa gis ilay ilay jëm ci yow tan na topp mu xëlu mooy mu daw istinaanan jawaadi kem xëlu fasu naaru góor muy daw xël kay day wane yaakaar film nit maa di ci lebam pousse mel ni fas wane waqaala muallim ne ñu àndama mu wax doon ñu ne ko badaari badaari gaawal gaawal gaawal waay gaawal wala mu naxal jortu bu ñu xam ne ànd na woon nag moom xarala naxee na ma talaba te mu sàkku al ma farada ñun xalaatu ñu woon ci moom naxee bëgg a daw wala bis na ñu sax na xuboo di ko kuulu riqabatal ayaari képp kuulu ay xeet ñu toog de ko xaar kay yàkkal bi mu dikk nef bi mu dikk hmm. mel ni gune guy xaar su wala julli gi kay ñu ngi kontaan ba hmm. toog di ko xaar wala gis naa ñu sax ndax xumu woo ko fóoglu hmm. te xabaatal ayaat kenn fóoglu ayat loo xam ne dog nga ne dana ñëw te bu ñëwee di sa bànneex wana te ñuy sàkku xamam mooy ñii ko laajte ñii ko sàkku yëglu bi talaay ay way fenki wa ruwaade ak taliyan talayan lañ koy jamoole mooy ndawi buur yi wër xàll bi de ko xaar ku ci def lu jaaduwut ñu teg la ci yoon lim xaw a doon mooy oye foore dégg nga raid ruwaat mufrad bi raid la mooy jii dem ci xàll bi dafa jël li nga xam nit da koy soxla ci àll da ñuy ñi wër yi mel noonu te lu bu baax a baax ñun biñ nekk la ñu ñu fekk ñu ne dëkk bi ngeen bàyyi ko jëndee fi ko ngeen nangam ko ngeen nangam ko ngeen nangam hmm. waaw wallaahi am may loolu ñi nga xam ne ay hmm. ndawi buur la ñu moo teg ci àll bi wana salli woo ñii sàkk ñii ko sàkkoo yëglu mooy ñii ko laajte mm. bi talaayee ci way fenk yi ñii ñëw ci àll bi ñu ne leen tuddee ay talaaya mm. wa ruwaade ak way gubi ak ñi ñëw ci àll bi ñu leen tuddee ay ruwaat mm. ilaa narima ba màggat am na aru bëccëg bi wakkaada te jigéen mi juruf mooy li simit kaada dañ koy rafaat wakkaada te jigéen nañ ko defal juruful yow mi ngasal bis bi yéen aru ñoom moom ba nga xam ne bëccëg bi jeex boobu lañ xeen de ko néeg bu bëccëg bi jeex falamma taala ba yàggee amadu léegi saa dira mu ñëndeku wala hatta feeñ a su jant bi fil admaari ci sagar wala fil admaari ci tundu bañ ko muñe ne ba muñ ba yàgg xam ne jant bi jëm si na ci so qultu wax naa li asaabi ñaar samay àndandoo dama wax ñi ma àndal ne leen xatta naa naa jot nañu dayoo filmu la di ci yéex léegi moom muñal nañ ko ba muñal gi tarde fekk nañu ci lii doy na ci muñal ni waaw xattanaaxee naa jot nañu dayo filmu la di ci yéex wa tamaa day te ñu wéy fi rex la ti ci laxat fi mu ne ñun tukki moo yàgg dikkal nañu ci yoon bi bëriñ nañ ci yoon yi ilaa adaana ba ñu sànk asamaana jamono hmm. ba bëccëg moom tey perte nañ ko ci jawla bi wa hmm. baana te bir na ne an rajulan naka waa ji xat maana fen na te waa ji dañuy na hmm. la boxoo sa tajidu mat lay alayka aqraba min tidaari tarfika ilayka dana ku ne xam ne doo atul dëgg waaye si soo ba léegi ñu koy xaar kon fa taaxawoo na ngeen waaj li taxaa ni ngir la léegi nag comme que ñu doon xaar gisuñ nañ dem wala talwoo te bu leen di boyooti ala xatra yi dimani caaji na taxi pusaara xam nga pusaara bët yooyu defan ci fëni xam nga dafay gaaw a naat lool gaaw a lool waaye benn njëriñ amu ko la defal bu wóoree jëriñoo gattax bi du yem ak gattax te loolu waaye nag naat na ci boo koy xool bu saxee mm. dafa am ci nit ñoo xam ne buñ kàddoon nga foog ne ñu ci gën mm. ñoo mm. waaye bu def jotee rek danga xam ne jotuñ sax te lungu baax a baax wala bu leen di boyu mooy bu leen di naxu ala xadra yi dimani ci aji na taxi sat-sat wala pusaar xaali ne wan naa tuuma buur li ma di ja naa tegal raxilati sama foofu laa buuree ne naa tegal sama gëlëm waa te xam ma la ak ma xenu wala ma jengre rexlati jëm ci sama laxas préparé pour dem fa wajattu ma fekk aba sérin abu sérin xat kataba bind na mu alal xata bi ca tegga ma fekk abu sérin mu ngi bind ci suma kaw teggi lii may wax yaa man xada li saaxidan wa musaaxidan dunal basar la taxsaban anni na ay tukaam malalin sar lakinnani mudlam azal mimman ida taiman tasar yaa man e yow mi nga xam ne xadaa mu sànge dan de xasabu lii ñaan ma yow mi nga xam ne nga ci man xasabu ci nga yuutoo dara soo bëgg a dagg dara ci ci nga bës ndikoo soo bëgg a taxaw kon yow mi nga su ma ndimbal nga loolu la bëgg a yaa man yow mi nga xam ne xadaa mujj na mu sànni daan de kem xasagu lii ñaar ma wa mu te daa ji dimbale doon doonal basar walis mbindeef yi yow mi nga xam ne fu ma la fa fekk fu ma fekk su fa amaatut keneen itam da nga ci dimbale ma laa tax bal jortu ne andi naka man na ay tukka sori naa la an ma laa leen ci yokkat ba foog ne seen mbir moo ma sar awasarin wala rëy wala damaa jëkk lakin na nii li fi nekk man mut lam asal musumay dëñ mi man de bokk ci ñi nga xam ne ida saayama bu ñu lekkee in ñu wisaaro ñu tasaaro waaye man nag lenn sama mbir la su ma demee ci barabu nit ba mu fi daal gaal na ma gis ne sonn na ci man dama bàyyi bàyyee fiixal ko nag bàyyee ko boppam man loolu laa di jëf fa idaa taayamtum fantasiru saaba yi dañ daan de bu leen yonent bi wooyee ñam am na ci ñoo xam ne bu ñu lekkee dañ fay toog rek ñu leen ne du loolu waaw dem ne fa idaa taayamtum fantasiru mais loolu dama koy jëfandikoo nekk ci barabu gu baax a ida tayamtum ixwati fantasiru hadisukum yudi axakum fahdaru fenn gu baax a su ngeen ko defee lor lay doon rek wala tutil muxsan ida tasuru wala tutil muxsan ida tasuru ki boo ko nemmee ko dofa ne rek tafa jógee linnaasi fi buyutihim umuru waaw linnaasi fi buyutihim umuru nit ñi leen dafa am mbir yoo xam ne dañ koy soxla te ci seen i néeg rek lañ ko mën a defee te ci seen i néeg lañ ko mën a defee wala tutil muxsan ida tazuru linnaasi bi buyutihim umur man daal la demee lakin na nii li fi nekk man mutlam asal moom mosuma ci dañ man de koo xam ne ida temps ma bu lekkee intasara moom itaaru qaala haaris nee na fa aqratu ma jàngal aljamaata mbooloo mi alxataba mbind gaa ñi daal ñun kat ñun ñoo fi doon waaye waa ji moom tàggoo ma jàngal leen lim bind ci teggi ah li yax di reeroo ngir na ko ngàntal man ko xam ne ata ba yedd na ko ndax ku bëggoon a ñaxtu yéen man koy ngàntal ndax gannaaw man maa ko wan nit ñi wax lu tax nit ñi fonk nit ñi jox ko daal su fekkee wane na melokaan woo xam ne ñëppay bokk mere ko man ne mën a xaajoo mën a gudd a xaajoo nit ñi moom mu dem bàyyi fi nit ñi mu mujj am kersa loolu moo tax damay taxaw ci nu ko nit mën a gàntale rek gannaaw man maa ko wan nit ñi maa wax ci moom lu tax nit ñi fonk ko maa wax ci moom lu tax nit ñi jox ko daal su fekkee dafa am nu mu defee noo xam ne bu ca a xamul mën naa waral nit ñi di ñaxtu ak di ko wax yenn yi moom mu dem bàyyi fi nit ñi man mi mu des ak ñi man mi mu bàyyi ma des ak ñi man naa cee amee kerta lool moo tax ma ne xaaral naa jàngal nit ñi li ma ndax kenn ku nekk am loo defee naa ñun nañ ñun daa ñun kan ñoo tax ñuy waaye tàggoo na fa on ji boo xéemuloos leen bi xuraafati yi ci naxaatam ñëpp xéemu ci ni ma ne waxi naxaat xuraafa mooy waxi caaxaan ay nett lii jëmul fenn dafa ñëw ci hadiis mu ne xuraafa fi mu cosaan mu dëgg aga waay la boo xam ne ba noo xasrata ci la bokk hmm. ñu ne jinne yi dañ ko këfoon fardoog moom diir bu yàgg yàgg yàgg yàgg hmm. gannaaw bi mu delse bi mu delse na daam yu mu daan nett li ne déggee na ko fa hmm. mu nekk nett li yu tumaranke tumaranke saa soo xamee ni nett li ne lu tumaranke ñu ne hadisum xuraafi yi wala hadis xuraafata la wa taawutoo ni nit lu min afati ci gàttam waaye nag suma innaa topp ñun nag ba xam naa laxas na ñun nag boobu daal dañ fa bàyyeeko e walam nag rek xamuñu man ana na an naa ci ñun xam naa xew gannaaw bi xanaa ñu fa ñëw ñoo ko mën a leeral ñun daal boo nañ fa bàyyeekoo pare nañ jaar baax na foofu